tamit nak di euh, ñaan aussi yalla nangu ñaan yi nga xamni jot nañu ko ñaan ci màggalu touba wu ren wile Euh, ça fait que xam ngeen depuis un bout de temps retrouvé wuñu len donc cause li ko indi moo di màggal wi mais alhamdoulillah on est de retour et nous suivons également tous les matins j'ai l'habitude de le dire c'est votre meilleur zeste de la journée parce que nous, à travers cette émission matinale, on vous réserve le meilleur que vous pouvez trouver nulle part, de l'actualité, mais également des invités, des marques qui nous font le plaisir tous les matins de venir nous retrouver et bien entendu de partager l'actualité matinale, que ça soit locale et nationale, avec nous. Et pour aujourd'hui, nous allons parler de la politique, parler également du parti politique, développement Sénégal la fii la ñu daal di nekk ñu am mbégte war euh, ci waxtan wi tay di docteur Ahmed Diallo nek euh, commissaire scientifique en charge des affaires étrangères euh, ak li nga xam mo jëm ci panafricanisme bu bureau politique national bu PASTEF en même temps nek coordinateur PASTEF fi nga xam ne moo daal di nekk commune bu Ndiaffate ñu am tay andak mom ci plateau bi ñu nuyu ko bu baax dalal ko te jaajëfal ko tamit parce que c'est la première fois ñu dalal ko ci plateau yi salam donc am amna ñu ànd andak yow. waaleykum salaam Makhtar. Mm-hmm. maa ngi leen di nuyu bu baax. Mm-hmm. Euh, di la ziar. Mm-hmm. Euh, di lu émission bi. di nuyu également mbokki Saloum yëpp. di nuyu si waa Ndiaffate. di nuyu Sénégal. di ndokkeel aussi la communauté mouride ak toutes les ak ci màggal bi nga xamante ne génn nañ ko ci jàmm ak salaam. ñaan lépp lu fa ñaan yàlla subhaanahu wa taala defal ñu ko. ci jàmm. ak ci nekkin bi nga xamante nekkin bu rafet la. ci Sénégal. di leen euh, di rafetlu aussi liggéey bu am solo bi nga xamante ni dañ koy def ci wàllu communication. Mhm. ak si wàllu yeete en tant que en tant que média. Mhm. am na solo en tout cas mu nu nañu te tamit dalal la war a bokk yow. li nga xamné mo dal di nek waxtan wu yatu am solo yu ñu wara a sekk ak yow donc xam ngeen ne fajar gune bu ñu xeyé la ñuy dooree mooy euh, dor li nga xamné mo dal di nek xibaar yi jaaree ko ci yottu ko yéen kay kaay yi la ñuy xëy ak ñun fajar gu ci dal di nekk ànd ceeg yéen jukkil leen ko buñ ci noppé dal di ñëw ak yi ak sunay gan waxtan ak mom euh buñ ci dal di noppé nak ñu ñëw ak yeen tamit ci li nga xamné mom mo dal di nek waxtan wu yatu yu ñu war am ak mom 10 heures ñu daal di daal yu la à la régie on vous retrouve très rapidement. Merci encore et soyez les bienvenus. Vous faites que a nous nuy retrouver vous rappelez que nous sommes en direct sur YouTube Nous sommes en direct mais euh, sur la TNT canal 17 nous sommes suivre dans les 14 régions du Sénégal Nous sommes leen bu baax ci déglu Nous sommes bi kàndoo mag bi ngeen di ak ñun door sunu groupe Univers Média bi la dépêche.

journal bi foncier prédation foncière qui euh, euh, l'école des officiers de la gendarmerie nationale euh, toll mètres carrés d'une valeur de 1 milliard de francs CFA la ñu di jëbal ki di Farbangom, Ngom ka ko def nak du kenn ku dul le président Macky Sall donc cette parcelle ben bi 200 mètres carrés la benen bi euh, nek foofu nga xamante lañ ko dal di attribué woon eh, kii di Farba Ngom il s'agit donc euh, parcelle numéro 196 197 117 118 119 120 ak 121 moom daal lañ ko dal di jox journal bi xëy ceeg ñun def ci taxaw seetlu bu ñu xaymaa sax benn bi nga xam ne 200 mètres carrés donc lay dal di jar mën nañ ko jaayee ci lu toll ci 100 jàpp 150 millions de francs CFA un ancien directeur général de la police nationale mom tamit bokk na ci ño xamanteni ne ni jot am ci suuf soosule ki nga xam mo nek Mahmoud Saleh attributaire également de deux parcelles ben bi 200 mètres carrés la benen bi 253 mètres carrés mu melni ni journal bi nam ci xey ak ñun nañu jappé won réew mi metti won na lol, journal bi yor yor mo xey jukkil ñu def ci taxaw seetlu évidence yéen kaay la mu xëyandeeg ñun seen aslem di pratique yoo xamante ne ni euh, yu fa yàgg la loolu nag dem na ba nek lo xamanteni sax mën na indi njeexital ci kër woowule sonal bi xëy ceeg ñun arrestation donc des suspects de double meurtre wi nga xam amon na fofu la ci Ndakaaru les accusés euh japp nañ ne xaritu ki nga xam ne moo Aziz Dabala la woon journal bi xëy ceeg ñun euh, li indi nak euh, jéye ji mu daldi am coowal coow li mën nañ jàpp ne homosexualité lesbienne ak ben livreur Euh, daal dina ñu indi ay leeral ci wàllu woowule ne daal euh, loolu nañ jàpp ni moom mu indi jéye wi sunal bi xëy ceeg ñun enquête sax gën cee yaatal bu baax meurtre d'Aziz Dabala et son neveu enquête bi daal mu ngay gën di jaxasoo ci réew mi sunal bi xëy ceeg ñun euh, lu toll ci juróom benn personne waxtu wi ñuy wax ak yéen dat la ñu leen toog loxo dañu jàpp ci sax ki nga xam ne moo nekk Nabou Leye ami intime de Aziz Dabala sunal bi xëy ceeg ñun ils ont été également perdus par leur téléphone bi nga xamante dafa daldi dañ ko daldi euh, localiser ci euh, lieu du crime journal bi xëy ñun ce que révèle li nga xam moo l'exploitation téléphone bi nga xamne ne le téléphone Nabou Leye ñun les aveux glaçon yi nga xamanteni ni ki ñu japp ne mom mo fat Aziz Dabala daal dina ko indi sur ci mobile bi nga xamne mom mo moo di tax crime bi daal di am journal bi enquête xeyna ci ak ñun tay def ci taxaw seetlu tribune yéenekaay la mu xëy ak ñun Jaraaf Alassane daw secrétaire général syndicat des travailleurs bu BTP journal bi xey ci ak ñun yëkkati ay kàddu ne dal des centaines de millions d'emplois waxtu ñi wax ak yéen dañu daal di nekk en sursis BTP bu Sénégal dañuy dund waxtu wi les jam euh, moment yu metti metti ci lañ wara a état bu Sénégal euh l'état donc bi nga xamné jot nañ ko am ci walu dette intérieure ñu yoral ko état bu Sénégal euh, dal dina dal nekk ben facteur premier ci li nga xamanteni mom moy dal di indi jeexital ci secteur yu ñu daal di nekk plus de 300 cent 350 milliards euh sont dus aux entreprises majeures du pays euh, pour euh, secteur BTP national mëna nak gëna mëna sukkalé ko wat il faut que ñu renforcer il faut que ñu il faut que forcément que li nga xamoo nekk dette intérieure euh, sont euh, intégralement ñu dal di ko régler tamit yenn ci marché yi nga xamné ne marché yu mag la né ci réew mi ñu mën di ko di gagné sunal bi xëy ceeg ñun Alioune Tine président jom Center yëkkati ay kàddu ne dal aujourd'hui qu'on le veuille pas Ousmane Sonko mooy daal di doxal li nga xam ni moo daal di nekk gouvernement moo daal di nekk réew sunal bi xëy teeg ñun il faut que Sonko euh, génn nag ci casquette wu njiitu réew gi ma bëgg muy doxee kaddu Alioune Tine sunal bi xëy teeg ñun qualifié d'opposant poltron ci kaddu Ousmane Sonko Bougane Gueye Dany moom daal nee na dina daal di indi ay leeral tontu kii di Ousmane Sonko tribune xëy na ceeg ñun tey def ci taxaw seetlu le point actu ñëpp xam nañ ne ci màggal gi daal di génn la indi coow lu bare bëri bu ñu moyuwul sax jaxase na bu baax comité d'organisation bu màggal wi li muy lettre yi nga xamante ne nii waxoon nañ ne dañ ko jëbbal le njiitum réew mi ngir que euh, yenn gan yu important yi nga xam ne doon ñëw ci màggal wi ñu mun leen dalal ci yenn ci ay hôtel yi nga xam ñu ngi nekk ci place bi loolu nag indi na njeexital wu bëree bëri ci réew mi sax ndax Serigne Bass Abdou Khadre moom daal ne daal ñoom moom bindul xalifa bi diglewul ñu bind ben ab leetar jagleel ko le président de la république et sax ñom buñu ko dal di sollicité won autorités yi dañu leen ko dal di may ci beneen walu wi ki nga xamone nekk Serigne Cheikhouna Mbacké ne dal mom du bur bu amutoon autorisation jamais du def li nga xamante ni wala mu génne bataxal wowulé di ko jagleel kilifa rewmi euh, le refus du président n'a que dina indi ben ben zizanie yi daanaka ñu bëree bëri gis na wartoon démé noonu journal bi xëy na ceeg ñun def ci taxaw seetlu euh Tine ak yim daal di qu'on le veuille pas c'est Ousmane Sonko qui gouverne le Sénégal rejet systématique donc les critiques

def ci taxaw seetlu li quotidien la mu xëy dégg ñun 130e édition bu màggal de Touba projet d'extension de la grande mosquée Touba voit encore plus euh, plus grand ci màggal wi de Serigne Bass projet d'extension jot nañu ko amandi ngir ñu mën installer également des parapluies des parasols waaye tamit li nga xam moo di ay climatiseurs destinés aussi ñu gën a mën a ñoŋal euh, nekk ñi nga xam ñoo daal di nekk talibé bu ñu ñëwee ci màggal yi euh, plaider également pour li nga xamne mo nek finalisation du projet comme Daara cheikhoul Khadim bi nga xamne ne nañu ko journal bi li quotidien mo ci xey ndek ñun tay def ci taxaw le Sud Quotidien Air Sénégal International ak SAD mooy ak jafeem batay muy gën di continuer euh, en compagnie donc euh, en zone de turbulence bu ñu moyul sax amna yenn ci ay trafic yo xamanteni ni jot nañu ko dakkandi lu ci mel ne suñu digënté réew ak New York journal bi xey ci ñun tay def ci taxaw Wolf Walf Quotidien la mu xëy attaque ak menace du premier ministre que toujours dans la peau de l'opposition son bi xëy ci ñun ñenn ñi seen xam-xam ni Mamadou si Albert Nedal, daal Maklos bu Nedal Sonko di il faut mu xam ne nekkatul ci kujje gi fi ni ñoo également euh, ne nedal ab confusion ou yato yato confusion de rôle Moi, am ci Ousmane Sonko ak ki di Bassirou Diomaye Faye euh, chronique bi nga xamné Indinako. s'agit-il de réduire euh, de réduire média opposition à leur plus simple expression trois points d'interrogation ba ko xëy ñun def ci taxaw de le quotidien eau assainissement euh, transport hébergement les mots du Magal sur ba ko grande ferveur qui euh, contexte hivernal lui nga xam ne moom Magal wi l'hébergement des autres étrangères euh, dans le créé ben, malège, bu doy comité d'organisation Magal wi les 11 morts lañ daal enregistré

L'être euh, bi nga xamné ne nañ ko le président bi nga xamné créé na ab malaise au sein donc ci biir comité d'organisation Magal wilé Cheikh Bassirou dal dina désavoué Serigne euh, dal dina désavoué Serigne Cheikhouna Mbacké donc euh, qui se défend mu mel ni réeroo am ci sen diggante ñom ñaar dal bi xëy ceeg ñun Cheikh Sidi Mokhtar Ka dal dina dénoncer également folklore ak rassemblement góor yeeg jigéen ñi néméku ci Magal wi né dal mbiri dal day dem ba yenn saa day faral di ëpp lu nekk dañ ko ci di def ñal bi xëy ci ñun borom daaru moom mi nga xam ne euh, fajati na ndaw yi ci kaddu kaddu dëgg yi nga xam ne da koy yëkkati saa su nekk bu jàkkaarloo yeeg ndaw yi journal bi xëy ci ñun tey def ci taxaw seetlu le soleil sax ci la deseen rek ñun donc gaspillage bi ñuy nemmeeku non respect également des séparations entre góor ak euh teug yek bongo yek bagage yi nga xamné day daal di am ci safar wi sunnal bi xey ci ñun sermon wi nga xamné le khalife euh, contre dérive yi nga xam ñu koy daal di amal aménagement nak de la grande mosquée ak euh, achèvement aussi des chantiers de l'université ndigal la wo xamné Serigne Mountakha Mbacké daal dina ko joxe ci magal wi le ministre de l'intérieur invité na également les jeunes à ce que nous bannir l'immigration irrégulière 15 décès des accidents relève ñi nga xam à pompier journal bi moom la ñun def basketball ak record la mu de mondial 2026 tournoi pré-qualification donc les lions tombent

benn nit. ñi nga xam ne ñoom lañ jort na ñoom ñoo def ñaawteef woowu li naal bi xëy ci ak ñun màggal Touba ak bilan wang na mu daal di doxee lu toll ci 14 morts lañ daal di enregistré leneen li tamit euh, jógee ci euh, mbir yi mooy euh, ndigal wi sëriñ wi daal di joxe ne daal am nañu ab yéene yokkaat bu baax li nga xam ne moo nekk liggéeyu jumaa jile waaye tamit projet chantier yi nga xamante ne nii woote nañu ko fa daañu ko daal di amal lu ci mel ni université yaa ñu fa daal di ubbi leneen li tamit mooy ñaawlu nañ bu baax taxaw be taxawaay bi nga xam ne taalibe yenn saa yi dañ koy faral di am mooy yàq weeg euh, folklore beeg euh, tëgg yeeg bongo yeeg bagage yi nga xam ne daal dañ ko fay faral def ak daje yi nga xam ne góor yeeg jigéen ñi dañuy faral di ko daje ci biir màggal yooyu la yooyu ponk bokku na ci yu gën a fës su Diallo am nga jàngat ci xibaar yi ni nu xëyee tey. waaw jërëjëf euh, di jërëjëfal bu baax ci li nga. Eh, joxe benn survol ci wàllu actualité bi. Mhm. Eh, mu nekk loo xamante ni si lu am am solo la. Mhm. li ma ci gën a ne mooy eh, bëri na ay kàddu yu jëm jëm ci gouvernement bu Bassirou Diomaye Faye ak moom premier ministre. Mhm. nekk na ay accusation ak ay argument yoo xamante ne xëy na ñenn jël jëmale ko ci ñoom mun na am ni. lu lu lu la. mun na am loo xamante ne aussi xëy na xëy na amul loolu ràññee nañ ko ci. Mm-hmm. ràññee nañ tamit lu bëri loo xamante jëm na ci wàllu màggal bi ak polémique bi nga xamante ni am na ci wàllu comité d'organisation bi ak lettre bi nga xamante ne nii. Mm-hmm. Euh, Cheikh Omar Diagne da ko génne woon. Euh, ñu bëri jàppoon ne état du Sénégal dafa bañal la communauté mouride euh, héberger leen ci ci ci hôtel yi. Mm-hmm. alors que tel n'était gis nañ après sëñ Bass Abdou Khadre aussi def na benn intervention di leeral mbir yi. ak ni mu mënta doon jàpp naa ne ay difficultés yoo xamante ne Sénégal yëpp la yëpp la booleel. Mhm. te ci yeneen éditions yi di ñëw. Mhm. jàpp naa ne xëy na dina fekk euh, nguuru Sénégal gu bees gi gën a jàpp mbir gi gën gën ci mooy da gën a mën a agir ci ci nu mu gën a gaawee. Mhm. Euh, jàpp naa ne sax amul réero mais xëy na communication moo demee noonu. mais xam naa ne état du Sénégal. lépp loo xamante ni maanaam lu jëm ci wàllu màggal la ak luy tourisme religieux am na fa xamante teg nañ ko fa. te xam naa ne dina ci def ay jéego yu am am solo. Hmm. Euh, beneen bi aussi moom mooy euh, maître Aziz Dabala nga xamante ni ça défraie aussi la chronique. Hmm. mu nekk loo xamante aussi lu tiis la lu doy waar la. Hmm. mais loo xamante aussi mu war ñu yóbbu ci ay jàngat yu gën a profond. ci suñu société ci nu muy demee. ak également ci insécurité bi nga xamante mu ngi ci dëkk bi ak yan jéego lañ ci war a teg. Sénégal delluwaat ci jàmm ñun ñëpp ñu am. sañ-sañ mun a fanaan fu ñu neex mun mhm. a xëy fu ñu neex bàyyi suñ njaboot fu ñu neex mhm. jàpp naa ne loolu jàpp naa ko ci say wax ak ci bi nga tënkee actualité bi tey ci suba mhm. nekk na lu ama am solo en tout cas danañ ci ñëw bu baax ci biir waxtaan wi ndax bokk na ci ponk yu ñu war a waxtaan crise yi nga xam ne mu ngi am ci réew mi surtout les crises odieuses yi nga xam ne audio yi nga xam ne dafay daal di am jëm ci walu immigration chomose des jeunes daañu waxtaanee tamit yi nga xam mo moo jëm ci walu transparence ak ci inondation yi nga xamante tamit loolu yeb bokk na ci ay ponk way la laataa ñuy xuusandi rek damay bëgg ñu taxaw un peu ci euh commune yi nga xamante ya fay dal di coordonner donc li nga xam mo dal di nek parti bi Ndiaffate nek tamit zone wo xam ne zone boo xam stratégique la quoi qu'on puisse dire la coordination aussi am na réero yu bari yu ci am parce que suma ma ya deux coordination yo xam mm-hmm. ku ci nek mu ngi dégager wu tamit ne moom mooy coordonné parti bi du côté de Ndiafat bëggoon xam exactement qu'est-ce qui a causé mm. benn cassure woowule ba mu am ñaari coordination ci benn commune jërëjëf jërëjëf ci laaj bi nga ma laaj aussi euh, di comme ni ma ko waxee sànq di nuyuwaat waa Ndiafat sama waa commune Mm-hmm. Euh, comme ni nga ko waxee aussi commune bu am solo la. Mm-hmm. commune bu am doole la boo xoolee ci wàllu population ci wàllu démographie. Mm-hmm. c' est la deuxième commune dans le département de Kaolack. bu nekk aussi commune boo xamante ne aussi ci wàllu nguur bi fi bu fi bu fi bi fi jot a romb amoon nañ am doole boo xamante ne nii amoon nañ maire boo xamante ne nii maire la woon député la woon ACT la woon. bu euh, nekk loo xamante ni yombul woon mais ci ndimbalu yàlla ak ci euh, engagement patriote yi. fexe nañ ba élection yi ñu génn yàlla def ba ñu am ci ndam yombul woon nag parce que ay kàngam lañ fa fekkoon euh, ñoo xamante ne xëy na sori woon nañ lool ci régime bi. Mhm. ba au bout du fexe nañ ba ba duma leen ay duma yu métti ci élection yi ñu génn. Mhm. loolu mu nekk loo xam ne dañ koy rafetlu di njukkal nag bépp militant Pastef bu nekk ci commune bi bu nekk ci tund wi ci taxawaay boobu nga xamante ne amoon nañ ko. Euh, ci wàllu euh, coordination bi bëgguma sax di ci wax lu bëri. parce que mm. ñi nga xam ne xam nañ parti bi. Mm. xam nañ réellement que ne euh, ñun duñ incarné loo xamante ne nekkuñu ci. je pense que mun naa la bàyyi rek à juste preuve nga laaj au niveau administratif du parti. Mm-hmm. boo ko demaree ci ci département bi ak la coordination nga laajte leen parce que man ñëw mu fi toog pour du néant. y a également ci parti bi li xew mom moy élection 2021 qui qui ci ci local yi. Mm-hmm. Euh, def investiture yi dañu ci ay principe ci ay euh suñu yenn euh mouvement. ci mouvance bi nga xam dañ mm-hmm. ci mouvance le candidat Serigne mm-hmm. donc lool mom fa donc nak parti bi bu amé parti bi ne ñun candidat bi la ñuy soutenir moom mu nekkoon euh, Aboubacry Sarr bu Koutal. Mm-hmm. dans le cadre yi Yewwi mu nekkoon candidat boo xamante ne Khalifa Sall moom moo ko proposé woon waa Yewwi accepté ko. Mm-hmm. donc ñun ci ñooñu la àndaloon. donc il fallait à ce moment aussi que parti bi am ñu ko yor am ñu ko campagnal parce que ñi nga xam ne dem nañu ànd ak Serigne Mboup mënatuñu yor parti bi. parce que mm-hmm. parti bi amoon na déjà voix boo xamante ne indiqué woon nañ ko. ci noonu lañ jëlee les devant parce que aussi man yàgg naa ci Pastef. man dafa def ma fekkee même.

parti bi aussi waroon am taxawaay boo xam ne da ko da ko a incarné ci lañ defee sunu assemblée générale woo militant yëpp ñu ne leen nag lii telle est la situation donc bu ko defee ci lañ def suñu PV yóbbu ko au niveau également de l' du parti ci lañ ko entériné depuis boobu ñun ñoo gérer parti bi donc su la keneen waxee moom mooy gérer parti bi au niveau de Ndiaffate ñun en tant que des intellectuels en tant que ñuy xalaat war nañ leen laaj ay question parce que boo yoree qui dernière élection yi nga locales, législatives et présidentielles local législatif, ak mhm. euh, appareil bi élection nous ñun ñoo pas organiser toutes ces élections qui sont passées ñun ñoo leen organiser ñun ñoo def campagne bi euh, architecture électorale bi ak les représentants de bureau de vote les mandataires les liaisons avec les autorités administratives nous ñoo koy gérer. Mhm. lépp luy parti bi également également ñun gérer.

tey ji bu hmm. bu bu bu bu bu bu booloo amul. Hmm. Euh, réeroo di gën di bari di gën di dugg loolu si mën na indi njeexital yu lay waar ci biir parti. absolument euh, xaajaloo moom. Hmm. ak euh, vraiment noonu amul njëriñ fenn. waxuma la nag rawatina nag ci parti politique. donc dissension yooyu noonu. dafa nekk loo xamante damay jeexintal yoo xamante mën na bloquer parti bi. par rapport ak envergure boo xamante waroon na ko am au niveau de la commune. mais jàpp naa ne tey Pastef c'est un esprit. Mm. képp koo xamante yaa ngi ci parti bi di liggéey. te euh, c'est le moment peut-être may rendre hommage a tous ces patriotes là bi ñu dañ lay wax dañ lay laaj wax ñu lan la parti bi wax ñun ñu conformé wu ci loolu parti bi aussi dafa am discipline de parti. Mm-hmm. dafa am nu ñu koy organiser patriotisme ak li nga xamante ne maanaam moom fraternité bi ñuy incarné dafa war am njeexintal également ci jëf yi ñuy jëf ci wàllu mm-hmm. woote di naan gars yi ñoom ñëpp fexe leen ba ñu dajaloo autour de l'essentiel ñu mun a xëccandoo di doorandoo. jël nañ ci ay initiative yu bëri ba ci élection présidentielle yi ci ju yi ci yi ci yi ci ji mujj am na suñuy mbokk ak ay am di jàmm yoo xamante vraiment ay référence lañ ay rôle ay ay modèle lañ ci ci ci ci njaafat lu mel ni comme suñu grand frère lu Turpin fexe woon na ba dajale ñu pour ñu jëm waxtaan fexe comme fexe ànd campagne liggéey jotoon nañ ci nag def ay jéego mais ba léegi aussi bon xam nga rek comme boo yegsee ci pouvoir am gars yi ñuy séntu lu bëri da nga am foo xamante ni xëy na mën nga fa taxaw jàpp ne mën nga fa am dara. Mhm. mais l' essentiel moom mooy que ne tey patriote yëpp au niveau de Ndiaffate xam nañ ñi nga xamante aussi xam nañ chef. Mhm. xam nañ lan moo suñuy valeur ak lan la ñuy incarné aussi xam nañ dëgg-dëgg ban conduite la ñuy adopté par rapport à cette situation là. et c' est très important. Mhm. c' est bien mu tax mu commencé foofu pour ñu mën a leeral un peu. xam fan la ñu war a jëm ben taxaw seetlu bi tamit moy Ndiaffate aussi mu nek zone wo xamanteni ni amul amul amul amul activité yu bari. Mm-hmm. l'exploitation xorom bi bari na fa. à part ça l'agriculture mo fa daldi am. mais tay ji dem nañ ba euh, exploitation xorom bi. Mm-hmm. dem na ba commencé sax xagn benen secteur yi nga xamni danaka mënon nañ wax vache laitière la pour askan wi. absolument euh, suuf saa ngi gën di xorom saa ngi gën di gagné suuf si. loolu je pense que doomi njaafat yu bëri génn nañ. kaas ko ñaxtu ko. yéen lan ngeen noppee def taxaw te seetlu ngir que loolu noonu mun a am njeexital wala ngeen mun ci am saafara. waaw am laaj nga laaj bu am solo boo xamante ne nii ñun euh, ci waxuma la sax xëy na ren mais depuis ay at. ñu ngi ciy mm. liggéey di ci jëmawut solution. parce que li nga xamante moom moo am njaafat. c'est une crise écologique. noonu lañ mm. koy woowee ci jamono ji nga xamante ne nii ñu ngi wax ci wàllu développement durable. parce que tay bo xolé ci protocole d'accord bi nga xamanteni ne commune Ndiaffate amalon nako ak la société de Sarin du Sine Saloum dafa am surtout ay extension yo xam ne dañ ñoom dañ leen ko permettre ci sen walu sen périmètre de sen périmètre de de production yi. Hmm. extension bobu non dafa intensifier activité yi de sorte que même salinisation bi dafa avancer ci niveau bo xamanteni niveau bu doy war la. gars nak comme dañoo muus so leen waxee dañ la naan que salinisation des terres c'est un phénomène général. Hmm. qui caractérise par exemple toute la zone. Euh, du bras du fleuve du fleuve Saloum. Mhm. mais du loolu moom mooy en en réalité cëslaay euh, bi. Mhm. li ko waral moom mooy que ne intensification boobu noonu tey ñun impact yi ñun dañ koy sentir. boo mhm. demee tey ci dëkk yu mel ni man fi ma dëkk Bil wala Kër Jara wala Njaafat dem ba Feloor ba ci ay baan da ngay gis tey jii nii xorom si nu mu nangoo tool yi. Euh, espace de pâturage mom manam fiñu ñuy nag yi pour ñu mën fa lekkee mom yoy waxatu ñuko pratiquement mhm. amuñ amu amatuñ fa dara parce que xorom si nanguna lepp lépp amatul ay gàncax amatul ay garab amatul leneen mais benen conséquence bi gëna dangereuse mom moy que tay bo démé nga xol tay le monde rural mo ngi commencé woon di changer mhm. yalla may nañu am ay jeunes cadres gars commencé di liggéey ñi ay enseignants lañ ñi ñu ngi nekk ci profession libérale yi ñi ay kat lañ ñi ay médecin lañ ñu mhm. dajalé seen alal ba commencé di tabax ay kër kër yoy non nga xamante tay ji bi machallah xorom saa ngi leen commencé di lekk mhm. c'est-à-dire d'ici cinq ans d'ici dix ans li nga dajale woon nga tabax ci kër da ngay obligé waat defaat yeneen investissement pour mhm. mun a defaraat te loolu c'est vraiment déplorable mhm. moo tax tey ci conférence de presse bi ñuy amal à quinze heures point yooyu dinañ dinañ ko ci wax te jël nañ ci ay ay ay ay ay ay ay ay ay engagement ak ay action yoo xamante ne ci diir bu néew dinañ gis résultat yi parce que déjà on a fait un dossier boo xamante dañ koy jébal autorités yi mais même ñi nga xamante ne aujourd'hui ñoom ñoom la concerné directement mhm. on les a adressé des lettres pour laaj leen ay informations par rapport à li nga xamante moom situation bi que ça soit la société des salins une lettre man personnellement j'ai eu à adresser une lettre euh, au niveau de l'autorité municipale également dinañ jot seen lettre tey donc engagé naa également ay député moom moo xam l'honorable Rokhaya Ndiaye nga xamante démb transmettre naa ko lettre honorable Guy Sagna transmettre également ben lettre dañu ngi waxtaan ak ki nga xam le président du groupe parlementaire honorable Ayib dafé mhm. donc le premier ministre ainsi que le président de la république également dinañ am un brief bo xamanteni ben benn synthèse moom dinañ ko jox le ministre de l'environnement également le professeur Daouda Ngom nga xamné aussi suñu xarit la ñu ngi tous les mhm. jours mom aussi il est informé de la situation mhm. et également dinañ fa taxawal ay ay jéego nek na lu am am solo lolu euh, parce que quoi qu'on puisse dire xorom si

waaw jërëjëf xëy na loolu euh, appréciation la. Mhm. boo xamante ni aussi am na ay fondement mais damay fàttali rek que ne mhm. biñ taxawalee gouvernement bi ak léegi am na ay doomu Saalum yu bëri yoo xamante ni jox nañ leen ay ndombo tànk. Mhm. xëy na nag dañ leen xamul ci base bi tey jii euh, am na ñoo xam ne sax dañ xam nañ leen ci base bi xëy na bi rejoindre coalition bi moom moo yàggul. mais tey jii ku mel ni le docteur Ndene Mbodj. de Sika nga xamante ne ni muy ci commune bu Kër Bakka kooku tey ji doomu Njaafat la te ñëpp xam nañ ko ci wàllu jàmbaarte ak ci liggéey yi nga xamante ne aussi def na ko au niveau de l'université mhm. mu nekkoon syndicaliste bu mag mu nekk également koo xamante ne ni jàppale nañ ci combat bi nga xam ne non ñu bëri nee nañ les combattants ñëw ci question voilà c'est ça je vais je vais en venir mhm. boo xoolee aussi am na ñeneen ñoo xamante ne xëy na waa Kaolack xamuñu leen ku mel ni Jamila Diallo ne moom mooy moom moo am amee la direction la case des tout petits. Mhm. waaye doomu Kaolack la fii dëkk euh, de euh, que je pense que Sara. Mhm. effectivement fa la deuk bo xolé ku melni Biram frère Biram ba nga mhm. man sama promotionnaire la mu France Jangi, euh, te mu deuk fi ci Lindiane également nommé nañ ko. muy sama effectivement donc xam nga ñoñu donc pour dire que aujourd'hui ñun suñu koy on est un peu satisfait parce que ça montre que le gouvernement bi nekkuñu fii di def li nga xamante maanaam moom moom moom lañ doon defee politique depuis les années 60 ba léegi parce que transformation systémique boobu ñuy wax il faut que également ñu mën ko mhm. matérialiser ci jëf yi ak ci feey maintenant aussi euh, ñi nga xamante ni ñoom ñoo fi yàggoon nekk di liggéey ci base bi aussi seen seen seen wàllu mu ngi ñëw parce que mënoo nekk aussi ci ci ci ci politique di ci liggéey nga am benn mhm. appareil aussi yàlla jox la nguur aussi ñooñu doo leen jox ay responsabilité loolu mënta nekk mhm. am na ay opportunités yu bëri bëri yoo xam ne mu ngi des fii ba mm-hmm. on aura la la la latitude l'opportunité de pouvoir nommer des gens. Mm-hmm. dinañ mën a génne ay décret te jàpp na ne ñëpp ñu nga au niveau de au niveau de Kaolack département dinañ leen jox li nga xam moom mooy seen cër. féliciter également la coordination parce que fan yee jàll. Mm-hmm. Euh, def nañ délégation bu Amosolo, solo. am solo Dakar D'ailleurs également le secrétaire général du parti Aïb Dafé, pour faire euh, na ko ci réalité mais également soññ par rapport au plan d'action bi nga parti au niveau de Kaulak. Hmm. donc de rassurer encore une fois tous les euh, wasalum à ak département de Kaulak que euh, seen cër dina ñëw am peut-être problème de background le problème de de cadre. non le, problème de le problème de cadre non Nico ko gars on di rapporter après c'est à vous. c'est à vous de justifier les choses. Mm. problème de background le problème de de de de de, hmm. cadre le, waral problème aussi. de coordination bi ci biir yenn saa yi mhm. aussi day am mbir yoo xamante da ci am yoo xam ne mhm. loolu mooy yàqal Kaolack lu bëree bëri bëri waaw ñooñu mën nañ jàpp loolu mais man li ma xam ba xam mooy que ne mhm. euh, Kaolack kenn ëpp leen ay cadre euh, au niveau de la famille patriotique am na ay cadres yu mag a mag yoo xamante ñu ngi fi te ñu fàttali ko aussi ñun dans notre parti euh, cadre du ku ki jàng kese donc même aujourd'hui boo xoolee toute la crème jëlee ko ci enseignants yi am na ci ay ñoo xamante ni ñu jàmbaar la nekk ci suñu coordination bi chaque jour di di def liggéey boo xamante bu am solo la di ko jëmale ci sénégalais yi ak également ci ne moom mooy liggéeyu Pastef boo demee également fi gën a kowee xoolal coordination bi bëri ay docteur ñoo xamante ne nii man dama doon jàngal université léegi maa ngi ci système des Nations Unies mm-hmm. boo xoolee am na ñeneen docteur baabu Diarra Kër Socé am na ñoo xamante ne également ay maîtrisards lañ mhm. Alassane Diallo bu si ba sor mhm. am na ñeneen ñoo xamante ne ni ba ci boo jëlee militants yi nga xamante ne nii ñoom ñoo ci gën a simple mhm. tey jii koo ci nommé tey am na background boo xamante ne war na mën a gérer li nga xamante moom mooy moom mooy moom mooy benn responsabilité gouvernementale euh, léegi nag aussi xëy na ñenn ñi naan que ne problème de coordination la wala leneen man yàgg naa Pastef xam naa le président Ousmane Sonko ni muy doxalee xam naa également la président Bassirou Diomaye Faye ni muy doxalee donc nekkuñu fi parce que dañu bëgg def li nga xamante moom moo neex. Mhm. Euh, ñenn ñi dañ fi nekk pour le peuple sénégalais. Mhm. parce que ñi nga xam ñoom ñoo leen votel du ñooñu rek la ñuy jiitee te structure bi nga xamante ni moom moom la ñuy woote bu ñu ko bëggee jëmmal il faut que ñu il faut que également ñu matérialiser ko fi sur des faits te gis nga front yi ñu ñu ñu bëree tey. Mhm. instant yi nii gars yi ñu ngi attaqué de tous les bords soo commencé woon def benn liggéey boo xamante ne nii bu désorganisé la rek. fofu que jëmale hmm. donc ça veut dire que ne c' une vue globale par rapport à l'allocation des ressources humaines. Hmm. par rapport aux responsabilités par rapport également lan la parti bëgg parce qu'aujourd'hui, l'État du état au niveau de hmm. Il y a le parti il y a certaines personnes qui étaient qui jouaient des rôles clés dans le parti. yoo aujourd'hui ñu ngi dans des positions centrales au niveau de l'État alors que le parti également am na liggéey jouer le président Ousmane Sonko président du parti sa vision il y a une éclairer di mhm. éclairer également les sénégalais mhm. et il va continuer également Qui vision nous, qui vision nous à mhm. éclairer la voie bi nga parti à lay emprunter qui dynamique nous tous les militants de PASSEF, ils ont le mérite ils ont la compétence ils ont l'éthique Ils ont à des postes de responsabilité Ils ont l'honneur et le plaisir de servir les Sénégalais. très bien am na solo parce que aussi da ciy baax aussi est di am aussi mbir yi xam fan la daal di toll parce que aussi dafa am nit ñoo xam ne dañuy toog ci absolument après di wax wax yoo xam ne mm. yoon la bu occasion dalal leen tamit mm-hmm. ñu dugal question yooyu comme ça ngir mu ci indil mm-hmm. ay leeral alors nous allons parler maintenant du du au niveau national ah parce que booba tey ñu ngi au niveau local euh, dañuy taxaw d'abord ci li nga xam ne moom moo daal di nekk insécurité bu bu doy waar bi nga xam ne am na ci réew mi da ngeen ñëw hérité réew moo xamante ne da ngeen fi fekk taux de chômage boo xamante ni mais c'est extraordinaire. daanaka yaakaar googoo taxoon tax Sénégalais yi wóolu leen mais booba tey gisaguñ. jéego am ci euh, gisoon nañ tamit la question de l'immigration clandestine. mu nekkoon question boo xamante ni sax lu ngeen doon joxoñ baaru baaraamu tuuma trop la régime bi fi ne woon. waaye terewul ba ngeen ñëwee léegi terewul mbir maa ngi gën di am doole. ba léegi saafara amu ci. loolu yëpp ñëw doole ko ci tamit ni ñuy gisee aussi ñaawteef yi am ci dëkk bi.

responsabilité état aussi da ci am solo ci li nga xamante maanaam moom lañ moom lay sénégalais di dund ak aussi perspective yi nga wax ñun lan lañ ci xalaat boo xoolee tey situation réew mi situation bu doy waar la. Mm. Euh, en partie nag xëy na euh, ñun on ne dira jamais assez te en certain moment aussi nit ñi dinañu wax il faut ngeen arrêter aussi ngeen proposer ñu quelque chose mais que sénégalais nangul ñu ko ne régime bi fi nekk. Euh, am na responsabilité bu mag a mag ci situation bi nga xamante réew mu réew mi loolu lay dund. Mhm. parce que dafa am benn borom xam-xam bu mag boo xamante ne ni borom xam-xam bu dëkk Kenya la ñu bëri xam ko mu tudd Wangari Maathai. Mhm. bu bind benn livre bu tudd le défi de l' Afrique wala challenge for Africa da ci wax ne na réew boo xamante ne dafa maîtriser. Mhm. le fardeau de la jeunesse parce que dafa jàpp ne jeunesse. d' une part fardeau la parce que dafa am loo xamante da koy da koy peser ñun ci suñu épaule en tant que ay bépp réew boo xam ne maîtriser nga ko def nga ay jéego yu am solo ci sa stabilité sociale. Hmm. Euh, dafa am ay causes yu profondes yoo xamante ne ñoom ñoo waral situation buy nii pauvreté bi ñàkk bi ci la bokk euh, ñàkk liggéey bi également ci la bokk emploi yi parce que réew bu fekkente ne amul ay nit ñoo xam dañuy liggéey di gagner seen di gagner seen vie di mun a participer à l'économie xaalis boobu ne mun a dugaat ci économie bi ku nekk. te fi nga nekk yow en tant que menuisier bi man ma am sama salaire ba sentir ne dama war a tabax kër ma ñëw jël la yow menuisier bi jox la jox la chantier wala état bi initier ay chantier yu mag recruter ñu ñooñu ñëw dama mën a dem fa liggéey donc problème lay doon. Mhm. régime bi fi jàll nag def na tout sof liggéey ci wàllu emploi de emploi employabilité. ah, ah, ah def na ko. dafa ko yaa yi am na programme donc xëyu ndaw yi ñëw na fii

tey jii nii da ngay gis nguuru Macky Sall lu bëri def na ko cest à mën na la jël nga nekk gardien wala mu jël la ngay def liggéey bu amul solo boo xamante ne ni xëy na tey loo jàppee liggéey bu amul solo liggéey bu amul solo mooy tey hmm. liggéey bu temporaire nga jël ko inscrire ko maanaam ci sa actif ci ci ci ci par rapport à la création d'emploi pour man hmm. loolu du emploi xam nga tey la politique telle que qu'on qu'on la faisait ci Sénégal dañuy jël rek ne jeunes yi kaay leen ñu dugal leen fi dugal leen fële mais su politique bi démé manam le leader politique ou bien l'aspect politique su ñoo ñooñu dañuy ñàkk tay ji xolal au niveau du Crous Sine Saloum par exemple ñaata nit la doon employé. Mhm. ñaata nit lañ arrêté sen emploi parce que ki nga xam mom moo fa nekkoon dem na. plus de 200 cent et poussière. xam nga lolu c'est pas des parce que du ay emploi durable si c'était des emplois yu durable gis nga emploi bo démé ci réew tubaab ni koy gérer moy mhm. dañuy fexé yow ba sa emploi bi mu mun mu nekk loo day day day sax. tey jii au lieu nga jël nit ki di ko di ko dugal fa mais demal nga jàngal ko d'abord. Mhm, moom au lieu tey jii nii ngay jël nit ki di ko jël teg sa wét. te fekk joxo ko benn position mais chaque fin du mois nga koy jox xaalis xam nga loolu du emploi. Mhm. parce que yow boo fa jógee rek kooku day dem. Mhm. sunu sunu sunu sunu population yi nag et surtout suñu suñu tund Saloum bi malheureusement loolu moom ma leen échappé gis nga nit su lay jàppale na la jàppale yow du bu mu la jàppale yow mais na la jàppale sa doom ba kooku mën a jàng ba mën a am liggéey boo jëlee par exemple benn dëkk tey de 500 personnes. mu wóor na la yaa cinquante personnes yoo xam ne à la fin du mois dañoo am salaire kooku le boutiquier du quartier da koy da koy leer na chaque jour dina approvisionné wu ci quantité bu mat parce que xaalis bi dina ñëw dina mën a dugg dina mën a jënd dina mën a jaay loolu bu amul nag du am durabilité du am jeexintal ci société bi mhm. loolu dafa nekk loo xam ne problème bu sérieux la woon ci ngu ci ci nguuru Macky Sall léegi loolu tey boo boo demee tey ci ci ci ci ci ci dëkk yu mag yi dakaar par exemple wala Thiès wala yeneen yi nga gis pauvreté bi nga gis précarité bi nga dem ba jeunes yi sax benn moment gëmuñu woon dara dañ doon naan toog muy dox moom mooy moom ma gérer dëkk bi. Hmm. c'est-à-dire nit ñi jàngi bàyyi woon nañ jàng bàyyi woon nañ dem imposé wu ci ay liggéey mais dañ doon toog di xool naka la ñuy lijjantee seen seen àdduna pour gendre les deux bouts. Hmm. ñu bëri dugg ci wàllu danse bi nekkul lu nekkul lu bon. c'est c'est c'est c'est un c'est un bon métier. ñii laxasu ci leader politique yi ñii laxasu ci leader politique yi ñii dem ci làmb ji ñii dem ci activité yooyu nga xamante ne ni bu bëree ci dëkk à un certain insécurité lay créer parce que am na baax na ci réew mais bu ëppee insécurité lay créer parce que mhm. jeunesse bi yëpp bu fekkee jeunesse bi yëpp professionnel euh, seen seen bëri ci seen activité maanaam c'est dans le professionnalisme du loisir mhm. day indi déséquilibre ci dëkk très important ça et Sénégal loolu moom moom moo ñu arrivé mhm. xool tey le phénomène des influenceurs sur TikTok c'est-à-dire Sénégalais yi tey ñoom ñëpp ñu ngi TikTok di xool lan moo xew ci dëkk bi liggéeyatuñu même da ngay dugg sa bureau sax phénomène bi daf lay affecté donc jeunes yi dañuy xool tey célébrité yooyu noonu ñoom nañuy nak la ñuy fexe ba copier leen ben moment da ngay dund bo xamante si yow so xeye mo nek sa copain dañuy and dem gis kenen dem gis diw mu jox ñu xaalis yenn say ñu rero ñu am problème ku nek yaa ngi am say problème bu keur finalement jam paaka ak leneen mun na ci génn. Mhm. parce que day déjà day fekk sun niveau yeggul yenn yenn yenn yenn yenn yenn yenn yenn niveau yi nga excuse moi ci ci ci ci ci expression bi. Mhm. donc lolu tay jii nii moom moo xew au niveau du Sénégal gis nga bo suñ société boo inspecter da ngay dem ba mu yag da ngay da ngay tiit. Mhm parce que insécurité bi ñuy gis ni c'est-à-dire les sénégalais se demandent aujourd'hui nit nan la mëna a ñaari nit. les sénégalais se ah, demandent façon reyin gi. ni nga xamé d'habitude ci film nga ko doon gis. mais bo laajee sociologie sama sama ben xarit sama ben socio euh, xarit sociologue ba muy université bu Saint-Louis dañ ci doon waxtaan keroog mëna ma séko sénégalais yi dañoo nek bir Sénégal mais dunduñ ci bir société bi. Mhm. mu ne ma gis nga yeen su ngeen doon dem ci banlieue yi ngeen gis tay problème bi tay mëna ma mënoo leen compter ñi nga dañuy xey dem di jënd xaaliss indil seen mbokk seen mbokk di ñu la sax foo jëlee xaalis bi le phénomène góor jigéen mhm. tey par exemple affaire drogue affaire chanvre indien affaire délinquant affaire ak yeneen mais lu tax mu am parce que ñooñu ils sont dans leur monde mhm. tey jii nii dangay dugg ci car rapide yi euh, Mactar nga gis client client buy buy buy xuloo bay waaj a dóorante ak apprenti ci cent franc mhm. xam nga yow yow yow yow bu fekkee da am sale loolu da lay yéem mais ki nga xam dafa xëy këram bàyyi fa dara moom cent franc yooyu représenté kon précarité bi dafa dafa yegg niveau boo xamante ne ni moom moo moom moom moo dérivé wu ba nekk nit que yow da ngay nekk mm-hmm. da ngay nekk nga koy reyee mm-hmm. te boo ko reyee doo doo jël ci moom lu am solo doo jël ci moom benn somme bu deux cent bu trois cent mille gis nañ cas amoon daaw ci wéef bi ci ci mm-hmm. multimédia bi au niveau de Pikine ak yeneen yoo xamante ne tey da ngay bàyyi sa njaboot dem liggéey nga ñëw fekk ñu rey sa doom mhm. donc yooyu il faut que sénégalais yi di laajte lan moo ko waral suñu demee ba xam lan moo ko waral nag maanaam les causes profondes parce que manifestation yi la ñuy gis mais les causes profondes souvent day laxatu suñ ko xamee rek dinañ mën a gérer mhm. te loolu dafay dellu maanaam ci suñ cëslaa ñun en tant que société ban genre de société lañ bëgg a nekk ban modèle de société lañ bëgg a ci màggal mhm. ci buñ nañ nañ jéem ñun li jàngale ci école bi instant yi nii ay yeneen la ñuy jàngale moo tax dangay ngay nekk ak xale yi dañuy am benn mentalité boo xamante ne nii ba demee ci réew moom la ñuy woowee les millennials mooy xale yu ndaw yi nga xamante ne nii tey pratiquement yow da nekk ak sa doom sax du ngeen communiquer. Mhm. doo xam lan lay fréquenter chaque jour nga gis benn fait divers benn parent ñëw révélé la man de xamoon ne sama doom day prostitué wu. Mhm. maa ngi koy doog a xam et cetera mais yooyu lan moo ko waral parce que jàngal amul amatul éducation de base.

donc moo tax suñ suñu bëggee defaraat réew mi il faut que ñu dellu ci leen d'où l'importance sa gaa yi fal leen falin gi ñu leen fale pour ngeen indi ay saafara ci wàll wi mais booba tey dañu gis a gudd mu mel ni euh, gars yi ci waxtaan bi la ñu gën a faral toogagum pour le moment. waaw xam nga transformation dafa dafa doy waar nag. Hmm. dafa doy nag boo xoolee. c'est pas du tigo c'est pas du tak hmm. man damay jël exemple yu bari ci ay réew yoo xamante ne ni euh, boo demee ci livre Barack Obama moom nga xamante ne ni terre promise. Euh, man dama koy liir lu bëri parti boobu noonu c'est-à-dire Obama bu ñëwee crise 2000 2000 2007 2008 ni mu ko géré ba bi muy commencé di am ay solution c'est-à-dire nit ñi nit ñi dañuy fàtte que ne Obama day dem di dajeek ay ñoom JP Morgan ak yeneen banque yoo xamante ñoom lañ accusé woon daaneel économie américaine bi te loolu nekkul ci benn at mais pratiquement toog na deux ans ñuy doog delloo l'économie sur les rails donc tey ji nii bu ñu bëggee jàpp que ne Ousmane Sonko en tant que président de parti wala le président Bassirou Diomaye Faye dafa war a def résultats immédiats immédiat ci un an Montenegro. nekk man dama discuter samay mbokk patriotes yu que attention on doit communiquer aux Sénégalais par rapport à ce qui nous attend. mais est-ce qu'on joue est-ce qu'on dans leur communication. parce que nous ne parlé waxee ci campagne mhm. parce que le Sénégalais ont amul habitude di faire la part des choses. wow li nga ko wax li ko wax. est-ce que aussi approche est-ce que aussi approche ci discours de campagne est-ce qu'il y avait pas il y avait pas eu trop de promesses. Wa xam nga xam nga xam nga bo ci britannique yi. Hmm. dañ lay nan les politiciens ils dañuy bu def campagne ils battent campagne en poésie. Hmm. et ils gouvernent en prose. Hmm. c'est-à-dire lolu écart c'est une réalité c'est un fait c'est-à-dire yow booy campagne parce que da ngay bëgg convaincre amna yo xamna sax xeyna du ci deug nañ waxante rek. parce que lolu fait politique mo mel mais boo ñëwee ci nguur gi nag dafa am réalité xam nga poésie moom dafa rafet. dañ hmm. koy def ay rime di def ay kii mais prose moom da ngay bind la neex. Hmm. loolu moom mooy ñaari réalités yu différentes yi. Euh, tey ji boo xoolee Sénégal pour nga changer ko du mën na sax du yem ci benn mandat di nga commencé changer ci benn mandat mais pour ñu changer ko mën nañ soxla benn mandat ñaari mandat ñetti mandat ñeenti mandat parce que bu ñu fàtte que ne rupture de système moom moo fi am. Hmm. de 1960 wala avant dafa am ay yoo xamante ne ni moom lañ doon dund ñëw. nga ñëw bëgg ko changer. Mhm. donc il va falloir nga opérer ay ay ay transformations profondes yoy nak mëno xey du jour au lendemain parce que déjà rek pour faire état des lieux yow maktar boo amul ben entreprise tey ñu ne ma la fa PDG. Mhm. ñu ne la entreprise bi da doon waja daanu bo ñëwé au moins di nga jël 2 mois pour def audit. pour xool saytu.

et loolu chaque jour dañ ciy am ay retour que chaque jour maanaam mu situation boo xam ne da koy jooyloo wala da koy merloo ba nga jàpp kii du Bassirou Diomaye Faye bi fi nekkoon. parce que mm. tellement la situation est catastrophique tellement la situation est pénible léegi nag pour ne pas faire des erreurs aussi parce qu'il ne faut pas se précipiter. Mm-hmm. nag y a des urgences yoo xamante ne moom il faut que ñu wax ci wax nañ ci wàllu dund am na ci ay ay ay ay

mais tey jii nii su le programme agricole bi nga xamante ne ministre de l' agriculture tey jii déployé na ko. Mhm. man gëm naa ne d' ici deux ans dina def ay résultat mhm. tey ji boo demee ci wàllu mbéyum ceeb bi rek suñu amoon autosuffisance alimentaire mën nañ agir sur le prix du riz booba duñ importer duñ importer ceeb bi parce que ceeb bi boo ko naree jëlee Thaïlande indi ko ba Sénégal transport boobu da nga koy jël en charge. Mhm. taxe bi ak yeneen. dañ ko jël en charge dédouané ko mu génn dédouané ko ak yeneen transporté ko alors bu fekkente ne fii nga ko béyee ci ci hmm. ci ci ci vallée du fleuve Sénégal wala ci bassin Anambé bi yooyu yëpp du la ci fekk léegi nag loolu aussi il faut que ñu toog def ay campagne benn campagne ñaari campagne ñetti campagne pour ñu mën faa yegg kon yi jël jël seen waaw il faut que mu métti hmm. il faut que benn moment il faut dafa war a métti parce que dañ bëgg changement man keroo dama dajeek benn tailleur ndeysaan euh, ma demoon foofu noonu di waxtaan ak mu ne ma man seentuwuma changement fi ak ñaari at yi pour dire vrai. Hmm. koku il a compris parce que transformation yi mo wax sank opération yi nga wara def changement yi nga wara indi day jël temps te aussi même yow bu fekkon sax ben sa cadre liggéey il faut nga jël temps pour comprendre waxuma la nak ci état boo xam complexité yi da ngay nekk di liggéey ci ben problème nga ba japp ne moy moy problème bu gëna mag. Hmm. <laughs> très bien euh, voilà c'est ça quoi. Ah. donc euh, j'adore débattre avec vous ah. merci hein. euh, oui parce que débat a une cohérence au niveau trop discours président de la République avec le président Bassirou même. qui mm-hmm. est président aussi. Mm-hmm. discours yi ñu mm-hmm. transparence

la ci indi eh, Sénégal eh, mhm. président et le premier ministre. Mhm. déjà dossier euh, c'est c'est vraiment surprendre que nous nommé déjà DG quelques mois après nous mais pour moi, je suis pour ça donne le temps sur la manière dont les autorités aujourd'hui veulent gérer mhm. le pays pour monter, le fait que nous relever benn déchet mhm. ci diir bu gàtt loolu sa dafa war motif wala motivation ci sénégalais qui est ci nguur gi ñu jëm nii nan la bëgg gérer mbir déjà pour une première pour pour une première appréciation parce que au moins y a eu des zones d'ombre le gouvernement n'a pas eu froid aux yeux il a dit jël ko écarté ko mhm. mais li ma ci gëna rafet lu mom moy que liberté aussi bi nga xamne may nañu ko waji ji mu mëna def sax conférence de presse indi ay preuve am tek wax ne man li la gis ak li la gis gaay nga xamne ne fi jëlé également nañ indi seen preuve donc démocratie bobu nonu liberté bobu nonu aussi dañ ko ñakkon ci nguur gi jall loolu il faut que il faut que ñu leeral ko. son ko yag na gën di léral de. non mais bokut ba tay musum rarement ngay gis ci nguuru Macky Sall. Mhm. DG buñu waccé mu ñëw indi ay preuve am Thierno Alassane Sall jaar na fi ministre la woon mhm. et cetera mais DG quand gisaguñ ko woon te ba léegi waa ji sa liberté ak li nga xam moom mooy son autonomie dañ ko koy respectel te dara duñ ko mu a def dara lu dul loo xamante ne moom il est content de ces de ces faits là loolu benn aspect la beneen aspect bi mooy mooy ñi naan que ne président Bassirou Diomaye Faye wala Ousmane Sonko en tant que chef de parti pour man sax Ousmane Bassirou Diomaye la a Ousmane Sonko en tant que premier ministre dañ ci war a wax état aussi comme ni ma ko il faut ngay jël sa temps. Mhm. il faut lenn mom leer na ma Ousmane Sonko il l'a dit à plusieurs reprises néna té te dako yag wax avant té man j'ai été témoin de situation où Ousmane Sonko a sanctionné des patriotes qui ont fait des malversations man fekkee nako gis na dama ko gis té xamna né Ousmane Sonko il n'a pas froid aux yeux à démettre un ministre wala une autorité bu fekkente né comme comme ni mu ko waxee ku ko def ku ci lekk dara wala def ci dara yalla xamna na da nga reeb et man gëm ne Ousmane Sonko ni mu koy waxee noonu la koy maintenant situation est ça fait même pas un mois. Mhm. est-ce que le président de ciy adou a tous les éléments est-ce que le premier ministre de ci adou a mhm. tous les éléments son autorité de tutelle c'est le ministre de l'assainissement docteur Cheikh Tidiane mhm. Dièye Le docteur Cheikh Tidiane depuis des années dans le paysage politique sénégalais il est l'un des rares hommes qui, sont tellement intègres en tout cas ci ne pas je disais que c'est dommage vous faites que dans ce cas là moom da ci am benn responsable, c'est très dommage parce que Cheikh Tidiane c'est un modèle de mhm. référence ces dernières années il politicien bu ko a cohérent bu ko mhm. gën intègre bu ko gën honnête bu ko gën sincère kon vous nga jàpp na ay tuuma yu ñu teg ci ndodam la ba léegi waxaguma ko li ma leer que tous les éléments ne sont pas encore ñenn ñi sa jàpp nañ ne procureur dafa waroon autosaisir ci dossier bi man dama gëm liberté pour pour te dire man dama gëm liberté man sama liberté man c'est sacré pour moi mhm. dama ko gëm pour man procureur s'il juge nécessaire mu wax ci da ci war a wax mhm. amul benn entrave bu ko war a tere wax ci wax ji mhm. parce que loolu lañ doon bañ ci régime bi jàll donc su ci gisee lu mu ci war a wax dina ci wax léegi ñun en tant que des sénégalais mhm. nañ toog di observer d'ici six mois d'ici un an parce que des rapports aussi dina génn parce que moom mooy inspection générale d'État ak yeneen corps yi nga xam ne ñu ngi fi dinañ def seen liggéey dinañ jébbal seen i conclusion bu boobaa nag tey bu ñu wala DGTEL a été épinglé par la loi d'une manière très claire. Mmh. on va voir si Ousmane Sonko ou, ba ou Bassirou Diomaye Faye dinañ teg sen sen sen seen loxo ci yenn dossiers comme waa ji nu mu ko doon waxee. bi bi loolu bu ñu ko défé uh-huh. les militants de PASTEF ñom ci bopam ñoo ko dool may. très bien te duñ ko mos a def. leneen li aussi moy euh, euh gisoon nañ fi ba le président togué taj. Mm-hmm. li ñu njëkk def moy publier. li nga xamné mo nek rapport d'audit yi nga xamné corps de contrôle defoon nañ ko. Mm-hmm. bu ci mel IGE. Mm-hmm. OFNAC et cetera et cetera.

waaw loolu moom ala kulli haal dina am certes nag y a le fait étatique et le fait hmm. politique. Ah, état daa am ay rythme quoi. état dafa am ay rythme politique aussi am ay rythme am euh, soo xoolee euh, ci situation bi ñu génn mu nekk situation bu doy waar. Hmm. parce que aussi euh, ñi may ñi ñuy wooyee d'habitude les délinquants financiers. Hmm. ñiy liggéey ci wàllu audit ak ci wàllu contrôle xam nañ leen dañoo bari ay stratégie stratégie duñ jeex. cest à président benn moment mu ngi wax ci discours am ñi nga xam dañoo am ay prête non nañ déclaré wu loolu ce n'est là que la partie visible de l'iceberg li président mën a wax sénégalais yi am ci une idée mais bu su fekkee dans la pratique ba ci ay jokkalante ay yeneen société wala ay yeneen nit ñoo xamante ne nekkuñu sax Sénégal ci ay paradis fiscaux ak yeneen ak yeneen ak yeneen bi ci blanchiment mm-hmm. d'argent ak yeneen mën na ci xew mm-hmm. loolu nekkul mbir boo xamante ne ni da ngay xëy du jour au lendemain aussi nga teg ci boo demee ba teg ci sa loxo aussi mm-hmm. xam nga ñun waa Pastef dañoo weex donc Mhm. tey jii nii dañuy ne tëpp rek ne japp nañ diw ñu né règlement de compte la. Mhm. gis nga gaay yi nga xamanteni mom lañ mëna a ciblé fii ñoom lañ épinglé ci ay rapport dina la wax benn affaire maktar même des mhm. sénégalais ordinaires. peuvent les traîner devant la justice avant même que l'État ne le fasse. loolu man mala ko wax. parce que dañoo def tellement d'injustice, yo xamanteni xamante ne ni tey maintenant le premier ministre bu ko nexé mom aussi mu xol parce que c'est il fait de la politique. parce que politique mom moko ko fu mu tollu

li xew ci banlieue bi li xew ci mbënd mi li xew ci ci ci ci àll bi ci ci ci monde rural bi. Mhm. ñi fi nekkoon ñoo leen ko teg. à travers quoi milliards yi nga xamante ñoom dañ ko dajale toog ci parce que man jàpp naa ne xaalis am na fu muy toll yow soxlaatoo ko. Mhm. lan nga ciy def. donc yooyu yëpp il faut que sénégalais yi xam ne ñii ñoo leen teg souffrance yooyu noonu il faut que aussi ñu xam ne aussi suñ société xam nga <coughs> am na benn borom xam-xam bu mag je pense que Babacar Justin Ndiaye la wala Abdoulaye Ndiaga Sylla nee na. Mhm. <coughs> le peuple sénégalais est souvent amnésique il a raison ñun dañuy teel a fàtte sénégalais mën la def lu ñaaw ba mu metti la lool mais tay boo commencé di laal rek ñu né non nako ko mhm. il faut que également comme Ousmane Sonko nim mu ko waxee keroog qu'on apprenne qu'on apprenne les gens également à vivre la dignité il faut que également qu'on apprenne les gens à rendre compte parce que jamono ji mom mo toll nonu xeyna na njombe ñu doon def ci société bi dans le passé amul woon envergure bi njombe yi nga xam mom lañ am tay mhm. donc la way nak suñ commencé nak di top diw wala diw wala diw. na sénégalais yi bàyyi ñooñu ak justice justice def liggéeyam su ko suñ ko defee seen doom yi dinañ am éducation bu baax parce que xaalis boobu dañ koy delloo ñu investir ko ci école yi mm. suñ ko defee seen doom yi dinañ mën a am liggéey parce que loolu dañ koy xool nuñ koy dugalee ci activité état yi ak ci yenn chantier yi ba sénégalais yi tey jii nii ñu mën a ñu mën ñu mën ci gis seen bopp mm-hmm. kon bu loolu tàmbalee ngelawaay nañu sénégalais yi aussi may mm-hmm. justice mën a def liggéeyam te bu fi kenn wax chasse aux sorciers la wala règlement de compte la

mën nañ jàpp ne daanaka liguey wi fi ji len fi jitu la won parce que y a eu des plans décennales yu une fi yëkkati woon. ak plus de 1000 milliards yo xamanteni ak ay plans sec yo xam at bu ne. Mm-hmm. Mm-hmm. ñu daal di ko yëkëti téréwul njeexital wi tey la gëna a tey la gën doy war ci askan wi. ka mm-hmm. bi ci mën jël moy euh, Touba. Kaolack ak yenn ci ay quartiers périphériques yi nga xam ne ñu fi daal di question des inondations mu nekk question wo xamanteni également. depuis ay at. Euh, gouvernement du Sénégal mu si ci am saafara. absolument noo jàngatee d'abord, abord gestion bi ni ñu ko téyee woon. Mhm. boobu ba tey ba Absolument. Euh, merci ci ci laaj bi euh, may fàttali rek ne question inondation dafa nekk question bu complexe mhm. euh, il faut ñu bàyyi ci xel man je me rappelle ci ñaari at yi jall def naa ci ñaar yoon ay post sama page Facebook. démb rek mhm. ma ngi koy xolat bobu ma ma ma ma ngi dalal sama mbokk yi patriote di len naan attention def len dank ci ni communiquer ci walu inondation. parce que dafa nekk loo xamante ne aussi dafay dépendre ci ay facteurs yu bëri. Hmm. tey jii nii facteur bi ci jiitu moom mooy que ne ñun ci jamono boo xam ne jamono changement climatique lañ nekk. Hmm. cest à taw bi du teel a ñëw mais bu ñëwee day gën a bëri. sedd bi aussi du teel a ñëw mais bu gënee bu bu ñëwee day gën a sedd boo demee en Europe hmm. <coughs> loolu moom mooy bouleversement écologique yoo xamante day am ci monde bi ci ci ay phénomènes yoo xamante ay phénomènes naturels la ay phénomènes écosystémiques la ci wàllu ay le phénomène El Niño par exemple ak yeneen yoo xamantene ne tey jaww ji da koy affecté mhm. ba gis nga tey boo demee Tchad ay ay ay région yoo xam toog nañ du mot fanweeri at musul taw mhm. moom moo taw ba inondé mhm. xam nga kon loolu changement climatique dimension boobu il faut ñu jël ko en compte donc day gën a jafe léegi aussi assainissement aussi nekk question boo xamante ne pendant très longtemps ñun suñu réew yi bàyyiwuñ ci woon xel aménagement urbain urbanisme da nga gis ay dëkk yu bëri ñu tabax leen ay place ndox lañ leen di tabax yenn saa yi mm-hmm, mm-hmm, wala mm-hmm. yenn saa yi ñu tabax leen amul assainissement amul ay canaux amul dara loolu bu tawee on nous on en train de se rattraper sur le sur sur le côté assainissement dañuy rattraper plan yi fi def yëpp moo xam orsec bi moom moo xam yeneen ak yeneen ak yeneen def ci ay milliards yu bëree bëri nag doon rattraper malheureusement nag xam nga mbir boo ko defaree ba pare nga war ci defaraat leneen day jafe pour nga adapté wu ko ay ingénieurs yi lay laaj ay yenn saa yi ay ay ay mbir yu état bi da ci wara a góorgóorlu ci bépp construction bu bess ak habitation yu bess mhm. buñ la né Diamniadio ville bi Diamniadio bu bess bi nga xamné tarkal la dafa dafa dafa rafet amul ay plan d'assainissement est-ce que ma gëm et pourtant c'est la situation je sais oui té lolu c'est c'est inadmissible dans dans dans l'urbanisme donc moo tax autorités yi nii ci lu wara a ñëw dañ yooyu la wara war régler sax avant ñuy naan nañ tabax nañ def la leneen légui rattrapage yi ñu doon def nak aussi malheureusement ñu doon rattraper wu tombé aussi nak amul transparence amul djubal ci liñ doon def mhm. xaalis bu bëri dañ koy jël alloué ko à l'assainissement ñu engagé ay société ak ay cabinet ak ay yeneen yoo xamante ne nii ñoom ñoo war a def liggéey bi duñ def liggéey bi comme nu mu waree amul saytu finalement fonds yi dañ koy jox à des fins politiques loolu moom moo fi xewal parce que soo xoolee Ousmane Sonko mu ngi naan bi mu nekk demee Saint-Louis que waa ji ne ko def nañ fi tant de milliards même loolu c'est-à-dire même un profane boo xamante ne xamul dara soo ko waxee def nañ fi tant de milliards ak ouvrage boobu noonu lay naan lii ça ne colle pas la roue. Mhm. moo taxoon mu ne il faut que ñu def ci rapport. Mhm. donc yooyu moom moo am jë jëloon xaalis bu bëri déclaré ne xaalis boobu noonu foofu lañ ko def. Mhm. alors que en réalité xaalis boobu defuñu ko fa. donc loolu moom moo indi problème léegi nguur gi bees aussi ñëw mois de avril presque lañ jël nguur gi. juin euh, juin commencé na taw heureusement ren dafa yéex a taw.

par exemple tey da ngay gis ay kër yoo xamante ne day am ay choc électrique nga gis nit dee fa parce que courant bi maas na fa nit et cetera mm-hmm. ay yeneen ay yeneen problème de santé par exemple ay ay choléra ay yeneen ay yeneen yi nga xamante paludisme bi ñuy wax mm-hmm. donc yooyu yëpp tey dafa war a daf en tout cas pour man la question de l'assainissement dañ ko war a jël avec une gravité boo xamante ne nii d'ici cinq ans Sénégal au moins sunu ville yi gën a mag day fekk ba problème boobu noonu dootuñ ko am parce que mhm. aussi ñun engagé les objectifs de développement durable mhm. et ODD 11 dit qu'il il faut que nous de sorte que les villes et les établissements humains soient résilientes et durables Ce mhm. que ñu ko fait, su suñu suñu ñun avantage en tant que mais également day tax un ñun également dañu dañu archi solution durable mais am. y a mais am programme yo nous peut-être nous ngeen indi ngir soulager parce que nous... solution durable il a am ren peut-être d'ici trois ans sax am parce que c'est extrêmement complexe en réalité mais comme nous ngi jëm la publication du plan transformation systémique pour un Sénégal juste prospère et souverain. nga xamante ne nii président de la république ak premier ministre waxoon nañ balaa at bi di jeex loolu dinañ ko publier. Mm-hmm. ci plan boobu noonu assainissement dinañ ko jox wàllu boo xamante ne ay investissement ak ay yoo xamante ne nii tey mun nañ jëm fu ñu bëgg te aussi tey yàlla jàppal nañu Sénégal am nañ stabilité am nañ code de boo xamante ne ni code d'honneur boo xamante ne ni ay partenaires yu bëri moo xam ay partenaires financiers et techniques amal nañ ko Sénégal am na aussi ay fondations yu bëri également tey seen ak Sénégal baax na ñooñu japp nañ tay suñu leen mettre ak profit ak ñun suñu suñu suñu suñuy investissement ak suñu budget japp naa ne d'ici 2 ans 3 ans la plupart des problèmes yi ñuy am di di di di dina dëñ mhm. absolument la plupart des problèmes dina dañ mhm. mu nekk lu am solo je pense que euh, def nañu def nañu daanaka le tour des mhm. points yi nga xam ne waroon nañ ko àddoog tey ak suñu ay gan Euh, beneen taxaw seetlu bi rek mooy dañuy bëgg rek nga dikk ak ñun. ci li ngay ñaax daanaka patriote yi fii au niveau au niveau local. Mm-hmm. parce que aussi euh, gis nañ depuis ñu ne ci réew mi ba léegi. Mm-hmm. bopp réew mi. Mm-hmm. activités yi aussi wàññeeku na. donc yu bëree bëri tegeel dañ ko ci suuf. loo ñaax gars yi ci wàllu woowu lee absolument merci ci ci laaj bi keroog rek euh, bi ma demee Guinguinéo parce que demoon nañu benn activité bu am solo ak honorable Ismaïla Diallo Euh, coordination départementale Kaolack aussi teewoon fa. ñu ngi leen mm-hmm. di remercier di leen féliciter ñu ngi ci doon waxtaan. tey jii lan moo war a nekk taxawaay les patriotes ñi nga xamante ni ak peut-être mm-hmm. même les sénégalais parce que ñun dañoo jàpp que ne tey ji dañoo war a defar Sénégal. Mm-hmm. harmonie ak cohésion nationale boobu nga xamante ne ni dafa dafa dëñoon. dañ ko war a tëggaat dañ ko war a beesalaat ba ñëpp tey ji suñu bokkul ay parti politique sax ñu mën a ànd sur des questions d'intérêt intérêt commun bokk na ci loolu tey nguur gi. gu bees bii. Mm-hmm. am na ay ambition yu mu am ci senegal defaraat réew mi lu ñuy wooyee lu ñuy tuddee construction nationale dafa am solo. Mm-hmm. c'est-à-dire tey jii nii il faut que ñun ñun cest à tey ñu bëgg déjà ñu gën a bëggaat senegal gën a waat suñu yéene ci Sénégal. Mm-hmm. gis nga boo demee ci réew tubaab bi tey boo demee États-Unis xale bu ndaw bu nekkee ci école bi dañ koy naan que ne. l'Amérique est le plus grand pays. Mhm. alors que c'est pas vrai. mu màggale ko mu màggale ko am nit c'est-à-dire américain bu toogee ak yow sax table day Japonais, ne kii. ils moromam. cest à il faut que aussi ñun nous en tant que nous participions à participer construction à travers des activités citoyennes par exemple. Mhm. cette s'appelle bi ñuy def ñu continuer ko veille sécuritaire et ci quartier en tant que des jeunes des acteurs dans les quartiers nous fexe des bi ñu gën encadrer gens. waat suñu rakk yi parce que jungle, dafa dafa am loo xam lu am solo aussi ñun patriote aussi mooy ñu dem wat hmm. parce que aussi bo bëgg ñu tek la ci yeen poste de responsabilité nga woote rupture. il faut il faut nga jang hmm. d'ailleurs amna ño xamanteni ci ci année ñi ñuy gogul nañ ci. am ño hmm. xamanteni aussi parti la ñor parti politique la ñor kep ko xamanteni bëgg ci am responsabilité. am ci cieur il faut nga dem jangi nga am domaine bo am dang ko pek nek ci spécial nek ci fierté pour le pays nga xamne bëss buñ la fa téggé ñu né ah sa way mi de ñëpp ko nangul nek ne compétence yi ni am ko. il faut mu am il faut que également ñi bok ci yeneen initiative yoo xamante ni ça nous engage pas nous en tant que politiquement parlant mais yoo xamante social bi il faut nga jàpp ci il faut nga impliqué par exemple aujourd'hui problème santé yi suñu population di am ñun en tant que des jeunes ban wàll lañ ci am mhm. ndax tey les jeunes de Kaolack waruñu def ay campagne médicale sensibiliser nit ñi sur certaines maladies yoo xamante ne mu ngi def mu ngi def ay ravage maa ngi waxtaan keroog ak sama benn natango le docteur Bidji Diallo de de l'hôpital régional mu ne moom mais hépatite B bi dans le monde rural dafa dafa atteindre ay employés. doy waar ñun en tant que ay jeunes lan lañ ci mën a def question tey jii nii mbënd mi ngay gis nii mën nañ xëy benn jour ñu soobu ci et cetera donc construction nationale boobu noonu tey dañ ci delluwaat parce que dañ bëgg a tabax Sénégal. Mhm. teg ko ci ay valeur yu leer teg ko ci ay valeurs yu sûres beneen bi aussi ma leen di invité à ce que ñuy muñ lu bëri. Mhm. gis nga am réew boo ko yoree il faut ngay nangu nit ñi di wax ci sa kaw. Mhm. dans la mesure où ko yow nekk nga personnalité publique wala nga nga yor appareil d' état. il faut qu'on laisse aux Sénégalais le choix de pouvoir s'exprimer dans leur liberté Je n'ai pas ci problème Je vais encourager à ce que nous nangul parce que nous dañ ko yàgg a nañ Sénégalais nous ñu exprimés. exprimer Nous ñu point de vue également ci sur l'essentiel également nous sommes discuter ak ñoom man vraiment je leen à ce qu'on soit une jeunesse soudée une jeunesse consciente de nos défis une jeunesse qui a également dafa niveau mm-hmm. dafa a déglu dafa jeunesse qui xamante également une valeur ajoutée Hmm. en tout cas nous sommes le trop trop docteur Ahmed Diallo commissaire scientifique en charge également des affaires étrangères avec du panafricanisme bureau politique national vous passez. en même temps mm-hmm. aussi que coordonnateur passef Ndiafate amoon nañu mbégte vraiment monsieur Diallo dalal la bokk ñu waxtaan bi merci ça a été un plaisir merci Makhtar maa ngi lay gërëm di la sante, mhm. di gërëm également toute l'équipe technique bi nga xamanteni tel ngeen fi xey lool mhm. ak cette première semaine après le magal xamna naa mhm. ngeen lool mais di leen et di leen jox tajé à tout moment su ngeen ñu soxla rek aussi tay ci ngone su ngeen amé si votre temps vous le permet ngeen ñëw ci conférence de presse bi au niveau de Ndiafat. d'accord en tout cas merci à vous également les téléspectateurs merci à l'équipe technique et nous, on vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah, même heure, même fréquence.